عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا وما

ca la bàyyi woon Serigne Baye na ko bëgg naa ngeen dellu na ngeen meloon ca kuusi kuusi yàlla rek la woon fii nag ku fi ñëw rek dund yàlla ndax lii fi xew wax dëgg yàlla dana néew ci pays boo xam ne da nga ko fa fekk muy pays Cheikh Ibrahima kon loolu ñu ngi la ci ñaanal yàlla buñ dajalee suñ xaalis ñu ne ku bëgg a bokk ci groupe boobu da ngay joxe ñaari junne adhéré wu weer wu dee nga joxe juróomi téeméer wala loo mën ci kaw loolu lañ dajale ba am suñ tuut ne mëktëb bii bàyyi bàyyi muy ay téeméer ay téere biñ demee saytu téere yooyu fekk nañ fa juróomi junney téere yoo xam ne bàyyi moo ko fàggul boppam fekk nañ fa benn téere boo xam ne Cheikh Omar Fouti yi moo ko bind fekk nañ fa téere yoo xam ne kenn mënu ko gis ci àddina bi ñu dem ci naayibul xalifa mu Cheikh Mouhamadul Mahi dem ci imam Cheikh Tidiane Ali Cissé biñ demee ci Serigne Mahi mu ne ñu bàyyi fàttaliku ne ne daf leen daan oo oh, moom Baaba Lamin ne leen wàccee leen sama téere yi ngeen fëggal ma ko mu taxaw bu nekk mën a roofaat ko fii bu nekk a ko fii kon su fekkee ne ñun ay ndaw jug nañ ne loolu war nañ koo dellowaat mu méngoog jamono ndax àdduna bi yëpp ñu ngi roy bàyyi ci ni ñuy organiser te message yi jël yëpp message yi bàyyi tey ñun ñoo gën a des gannaaw ci loolu topp yàlla nag war sa tax nga fàtte àdduna ndax ñaar yi mooy mooy mat yi mooy maqaama mat yi fa innama alkaamilu man qad jamaa bayna almaqaamayn maqaama zahir ak maqaama baatin fexe nooy rafetalee sa àdduna ba nga foog ne da ngay béer waaye liggéeyal ëllëg sa àllaaxira ba nga foog ne bu fi yàlla jëlee rek dana neex ci kaw loolu ci lañ dem ci imaam mu yëkkati juróomi million nga xam ne moom lef woowu kenn mënu ko ci ci liggéeyal baay ci xidma baay Cheikh Abdou Barham maa ngi lay seerloo ne imam Cheikh Tidiane Ali Cissé mi ngi taxa taxaw suñu wet ci zahir ak ci baatin ci ndimbalam ci dooleem ci ñaanam ci itteem ni ngi ba bitim réew waaye lépp lu ñuy def rek même dana oote vidéo sax seet ci lañ lañ nekk loolu nag ñu ngi la koy seedeel lottu nañ pour ñaanal ko yàlla waaye ñi ngi koy bàyyee sa buntu yow ñun wóor nañu wóor yàlla ne xam nañ ne jubóo ngay bàyyi loolu wax bàyyi dina ko ci loolu loolu la Cheikh Mouhamadul Mahi doomu Cheikh Ibrahim Niass moom tamit jël alalam ju bëri def ci mbooleem doomi bàyyi xalifa bi ma nga ba Maroc yónnee fukki tonni ciment ak xaalis bu takku ne moom mooy participation ci liggéey boobu fi mu nekk nii toll nañ ci téeméeri ton ci yoo xam ne ñi ngi ko am ci saako ciment ñi ngi ko bëcc ci kër Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ku ñëw teg ci sa bët benn jigéen bu ñuy wax Yaafaat Niass moom moo jël ñetti saako indi ko rek mu ne ay bismillah nañ commencé waaye gis nga liggéey yëpp liggéeyam bàyyi moo ci gën a yomb ndax da ngay foog ne yaay def wala yaay sottal yëf yi fekk bàyyi moo lay uti di def def li ngay def bët bu set li gën a néew ci xaalis danañ ko jëlee muy 3 millions 500 wala 4 millions par bés tabax boobu nag biñ koy jël di koy commencé dañ ne woon juróom benn weer. waaye fii balaa gàmmu ba tabax boobu ñun danañ ko xat bi ñun ndaw bàyyi ñu si moo tax képp képp ku dëgg ci bàyyi ñu yéeyal bàyyi loo somb rek dañ koy daal Cheikh Baye Hadi nii démb lañ ko dem seeti ke doomi ma xaddam yi ñuy seet yi ñoom ñëpp ñi dem ci moom mu yëkkati cinq cent mille joxe ko ne lii sama tàmbali rek waaye lu ngeen nekk maa ngi nekk géej kon suñu waxee ne ni ci lefi bàyyam ni mu koy defee fii ci ndukkumaan noonu la koy defee ci Medina Cheikh Ibrahim kon ñu ngi koy gërëm di sàkku ci yow nga ñaanal ko yàlla yàlla na suuf baayam ay fan lépp loo xam ne baayam mébatoon na ko ci pays bii nga xam ne pays bii bi fi baayam jugee ci lañ gën a dégg baat Cheikh Ibrahim Niass ci kàddoom nga ci lawetam nga ci jàng alxuraanam ci bëgg mbokk maa ngi fàttaliku korog bi Cheikh Ahmad Daam nekkee xalifa Cheikh Ibrahim Niass mooy ku njëkk a jaayante Cheikh Ahmad Ibrahim Niass radiyallahu anhu ne ko tey ñun ñooy say soldaar tey ñun ñooy say jëwriñ la nga waxoon Alaaji Abdoulaye tey ñu la koy wax ñu ngi ci sa tànk ñu ngi ci sa ron keppaar lépp noo rekk dem ñu ngi ci nekk ak yow kooku nag bi mu jotee yëf daf koo tasaare ne xilaafa gi man mënu ma ko xeenu man Ahmadou ndax bëgguma ñu yokkal ma ci sama tur bi dara Ahmad Ibrahim laa tudd Aysatu mooy sama yaay Cheikh Hadi yow mi daan jonjoo gàmmuy gàmmu yaa ngoog yaa amee ndigal loolu yaay gàmmu ba fu la neex nga jox ko ku la neex tafsir alquran bi cheikh Mouhamadul Mahi yaa ko daan def tafsir waa ngóog ñëwal ci bayaalab cheikh Ibrahim nga def ko kon ni ko sa baay daan defee porte parole bi yow cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahim Niass yaa ko yore ba bi sëriñ daam génnee daf ne Serigne Dame li ma joxoon du port parole sax waaye xilaafa la ma jox jël xilaafa gi jox ko Baaba Lamine na ko yaa nga Dakar uutuma ci xalifa cheikh Ibrahim Niass. loolu moo yaatal loolu la Cheikh Baye Hadi waaye lii ma jox nii wallahi mënuma ko moo ma ko dàq fuuf waaye yaatal googu suñ bàyyi daan def tey maa ngi lay seedal ne Cheikh Abdou Barham yaatal googu mi ngi ci suñu biir ñi ngi sàkku ci yow nga ñaanal ñu yàlla ci projet boobu yàlla dëggal ko projet boobu nag mboolem muqaddam yaa ngi ñëw di def waaye man de lenn rek laay sàkk soxla nañ alal de waaye man xam naa ne sa lijaaba moo gën a gaaw fuuf sa alal secret bi nga am di tabax école yi di tabax madaris yi di travail di dimbale toppam Cheikh Ibrahima secret boobu nga bëgg lañ bëgg tey nga jox ñu ko secret boobu man wóor na ma wóor yàlla ne bàyyi jox ñu ko képp ku na yow am ragal dara am nga garanti Cheikh Ibrahima bis sa maanaam képp kuy boobu bàyyi wala ngay sëbam rek sawar nga ci ñëw café bi ñuy ñëw ëppoon na lu ma juróomi ëpp dara indiwuñu nag lu mu lu xool sa jëmm ji wala xool sa kanam gi pour yokk mbëggeel ci bàyyi ndax bàyyi rek la mën a yëngal kenn mënu laa duut baaraam nag am na ñoo xam ne ñi ngi def loo xam ne teguwut ci sharia waaye boo leen jamee ci sharia rek duñ ta alayka salaatullahi thumma salaamu fa bara